salam guys yi avocat Sonko la gars yi seetaan leen ma di kat. Adja wax am. na am de. sax. la ilaha illallah li allah dem di ay ah no, gi de. Ah. sama très Hmm. gaay da jeen ya dawon sax delsi nañ man rek ma du del hmm jeen ya demone sax delsi nañ très bien sax ah way président wursak président wursak man waxuma ko de molé ko wax ñoo na li gejj na fi jigen ñi nenañ dañuy tan ba faj ba ba timis jeen ya dawon delsi wat nañ malgré accord de paix yi jaay nañ yépp mais téewut jeen yi refoulé nañ dellusiwaat nañ ah président xale président wërsëg waaye ñàkk wërsëg ba bëgg a dee ñëw rek bekkoor bi dikk mel na li fi dem li fi jógee lu rëy loolu kooku ñàkk na wërsëg nag aw jën dong jën jën dong wërsëgam amu ci eh, eggu ca ah waaye alhamdulilah rabbil alamin nag président wërsëg macha allah yàlla nañu cat seexlu yàlla nañu cat seexlu yàlla na cat seexlu sama président bi yàlla na cat seexlu sama premier ministre bi. ah prizna khale xale prizna président wërsëg nag yow nga toog rek ya daw ñii songu géej ga ñii songu Nicaragua ñii songu eh, ki jën wa daw eh, num tudd bëy ya de xar ya de nag ya de legi jur dafa seer bay bëgg a dee yàpp seer Sénégal bay bëgg a dee lépp seer ndax lan ben waay bu ñàkk wërsëg bu nu jiite woon yàlla bu tubarkalla sama gimiñ ak sama gimiñu morom li, yalla bu ci cat dugg yalla bu ci cat dugg président wërsëg macha allah macha allah macha allah kar kaar kaar kaar kaar salaamaaleykum gars yi waaye temps yi moom seetlu leen demu màkk mi <laughs> man makka jaal jaaxal na ma yow top senegal gi aji wo aji wo aji wo bañ cëppeel leen waddal yi len ne ale us ñom ñep ñu riru tali makka Saara Iyaan Caam ak Amadou Mbiita ak Farba ah waaw waaw tamit màkk wala màkk danoo wàññi billet yi te yëguma ko màkk est-ce que wàññiwuñ billet yi. <laughs> damaa joobi man ah <laughs> dewu màkk mi war na cee de <laughs> régulariser ko réglementé ko ci mu tëb rek yaa nga màkk fi mu toll nii ma xam naa màkk mënoon sa xelam daw dana daw. barke sëñ Tuubaa dana daw juutalantekat yeeg ñëpp a nga màkka màkka bu mënoon na tëpp xelam na pour daw dana daw laa la wax de am na ñoo xam ne moom leena ma ne màkka bugg leen a gis ñoo ko forcé seen bopp awaa ah, tamit lii nag war na see wax nag salaamaaleykum mbaa yéen a mbaa yéen a ngi ci jàmm maa ngi leen di ziar de <laughs> maa del siwaat rek dama leen di fàttali jëmm ji xanaa xam ngeen ko de Jérôme Jérôme Bay Bayñaak yi la xaw ma Jérôme Bayñaak ñu di ko wax la la sniper la sniper moom lañ koy wooyee jëmm ji ngeen gis maanaam wàllum nervi lu bot li ngeen doon gis kii moo moo ko jiite woon ku jege Amadou Sall la ku jege Macky Sall la moom moo koy defal lee sale boulot mu bëggee reylu kenn wala mu am ku mu bëggat fitnaal wala nangam nangam waa ji la kii moo bëggoon a rey Dame Mbodj bal yi ngeen doon gis ñu doon ko fi roose Dame Mbodj jëmm jii la du damaa wax sànni nag. ay vidéo surveillance ñoom ñoo ko génne ndax bi ñu tiiree Dame Mbodj Dame Mbodj daw dem ba dugg hôtel xaw ma la xaw am na benn hôtel mu dugg foofu noonu moom mii moom la ay caméra de surveillance génnee ba muy mu ca noonu noonu muy muy muy roode c'est Jérôme bii nii te yeneen video génne nañ ko mu ànd ak ay nervi am na video vidéo yoo xam ne nañ ko mu and ak sax yaakaar naa dof nday te dof nday ku ne gis na liggey bi mu don def ci affaireu walum nerf bi moomu non Jérôme Beignac la xawma ma Beignac ben Juan Branco ma nga ca dossier Juan Branco ba ca CPI mom mi ma nga ca dossier ba kon xam ngeen ne ki <laughs> du ko waxaan dama tok diko di ni rek dedet damay bañ nak ñu faté ko kenn du la kenn du la fàtte gars yi bu leen fàtte ñii waaw bu leen fàtte ñii ay mbaam la